góor Gora Khouma ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM. ñu ngi lay fay madame di nuyu say auditrice ak say auditeurs yi suivre euh, Rewmi FM. may fàttali ne ñoo ngi dalal euh, kii di secrétaire général union des routiers du Sénégal bokk tamit ci intersyndicale des transports routiers ñu déggoon leen bu yàggul ngeen di euh, artu ci seeni revendication ñu bëggoon a xam lan mooy ñaxtu yi ngeen di ñaxtu jamono ji. waaw dañoo defoon benn point de point ci semaine bii rek. pour yëglu wax gouvernement ne ko ñun de kontaanuñu wax aussi euh, kilifa diine yi bu mën ci doon mhm. ndax jamono bi ñu defee grève kilifa diine dañoo woo wax nañu bàyyi lu grève bi ndax situation bi tàng na ñu fàttali kilifa diine yooyu ne leen kat lañ diggoon ak nguur ba tax ñu bàyyi grève ba mhm. te ngeen duggoon seen gémmiñ ñaan ñu gouvernement la ñu si yoroon dara lañ ci dëkkut wax société civile bi aussi ne loolu ngeen déggoon ak juboo am na yaa ngeen ko def mais dara mu ci mhm. wax population Sénégal yëpp ne leen dafa war boppam war ñu ndax signature bu rëy te ministère transport moom moo signé ci turu ministère am mhm. moo signé ci turu gouvernement bi moom moo signé aussi ci président de la République mhm. ñu waxtaan bu juboo lépp lu ñuy wax waaw ñu signé ko ñu signé ko kon waaw boobu dafa war a nekk lu fës lu ñu mën a wéral dëggal ko mais bañ jógee ci gannaaw boobu le trois ñu signé le ay war da ca topp war bu ñu paase nga signé dara ba pare loolu nga signé dara nga ci déglu loolu da ngay nax ne nax ñu ak sa bopp ndax sa bopp ngay waree mhm. ndax ci point yooyu mën nañ wax ne dañoo wax ne nañ wàññi poste yi diggante frontière ak Dakar na nekk trois postes de contrôle mhm. loolu nag syndicat yi waxuñu ko UMA moo ko wax te Sénégal moo ne bokk na UMA lu UMA wax d'accord na ci trois postes de contrôle mu ñu gisuñu ko ba léegi dañu par dafa yokk ndax léegi kon maanaam fu doon am fukki fas léegi yaa ngi ci fanweer kon kay waxu iliman boo amutu solo lan moo tax gouvernement bi nag dina ko respecté dina respecté trois postes de contrôle yi ba pare ñu jox nguur ci gouvernement li wax ne gouverneur si yëpp dinañ wax kenn ku nekk na nga ordonné si biir région li ñuy wax contrôle groupé maanaam contrôle boo xam ne bii dafay nekk pour contrôle boo xam ne dafay am douanier ami policier mhm. ami gendarme ami eaux et képp koo xam ne te sa loxo mu ngi ci wàllu contrôle rek dañ leen dajale ci benn euh, benn place nga xam ne oto bu ñëwee ñoom ñëpp bu ñu ko contrôlé boo ko jógee ñu jox la këyit doole na yow bii wax ak yow mhm. mais gouverneur yooyu ba léegi amul benn gouverneur ci Sénégal boo xam ne wax nga sax lu ci jëm mhm. beneen bi ñu wax ne képp koo xam ne da ngay monti moo xam policier moo xam gendarme nga wax loo mën di day wax ne nañ nga yore carte de route ku juum mais ba léegi loolu mënuñu ko am ndax ay kayit yu weex rek la ñuy jox muy attestation attestation yooyu moo ñu bëgg rek attestation yoo xam ne ay une heure de temps lañ ci def deux heures de temps deux jours fekk mën a dagg bu dem ci kees a buur mais vraiment ñun dañ ne buy fotee buñ def ci poosam kenn nañ def ci poosam buur mais buur bëggul ma buur mu nangu buur muy police bu gendarme nu mu nu mu ñëw indi kees poos bi fekkee ay poos état nu mu jox indi seen poos la ñuy indi ñun dañoo alerte wax ne waaye antoon nañu bañ a baal mais ku juum defal ci keesu état ndax ñun ci état lañ bokk xaalis boobu na ko ay hôpitaux mën tali mais nag bàyyi foofu rek ku juum daal a jox état bàyyi fi état nit loolu lañ te ku wax dee ku wax ñu yàquñu kees dëgg la ñu wax corruption te corruption bi nguur moo ko fi bàyyi nguur moo ko fi bàyyi am na benn camarade wax loolu ndax nee mhm. soo mhm. tali bi jooy nañ ko kenn ku nekk avant ngay nekk ministre dal na ci police yàgg naa dal sa kaw avant ngay nekk député police gendarmerie yàgg naa dal sa kaw avant ngay nekk président dal sa kaw kon xam ne dal bii ci kaw ñuy wax du lu gan lu yàgg la mais boo dañu am même bu ne est li tax président lu mu cee wax daa bëgg ñooñu ndawal buur yooyu ah am sañ-sañ def lu leen neex ngir moom ëllëgee moom tamit mu def lu ko neex bu amee ñu jóg dal ci kaw mu mën a au police boobu au gendarme boobu pour ñu gaar camarade bi nag li mu wax ah ci dëgg man na nangu naa ko dama ne nañu ut ay aide de repos région bu ne da ngaa am aide de repos aide de repos yooyu képp kuy def transport de passager képp kuy def transport lourd war nga faa mën a dem oto bi am na distance bu ko dawee daa war a gaaree moom oto bi noppalu ñëpp yëpp noppalu loolu dafa bokk ci sécurité mais ba léegi ñaataat ñu koy wax amul benn région boo gisee boobu maanaam oto yi daal daw rek amul fenn fooy daw rek bu accident ñu ne du accident am mais li créé accident ci li ñu xis ba ngoon mais li koy wàññi duñ ko def duñ ko waaw kan moo joxe permis de conduire ministère des transports la koy joxe kan moo joxe visite technique ministère la oto yoo xam ne yi ay oto lañu boo leen laajee visite ñu jox la ko boo génnee fii gis oto boo xam koo xam ne kii xamul dara ci code de la route sax dawal daaw mooy daw tax yoon lu mu ci wax naa leen ne képp bu accident nañ wax Sénégalais ne waa ji permis foo la yore doo ko dégg yore bi yi nga xam ne moom la liggéeykat yi nekkee mhm. bu dee soo nag accident nga war a ci bokk ci facteurs yi mën a wàññi ak gaaw nit ñi bu ñuy liggéey ay liggéeykat la ñu am nañ ministère du transport mais amuñu ministre du travail te ay liggéeykat la ñu lan moo tax amul kenn kuy liggéey nekk si tey bakkan ñu am déclaration ci kees yi mu loolu leen gouvernement bi yor na ko ci dañu bàyyi rek ne léegi jaay bàyyi bàyyi moom tali Sénégal amul benn tali bu am sécurité jur gi jur kër ak jur àllaayam lu neex la ñuy bi dëru yi lu leen neex la ñuy jéggi tali bi doomu aadama yi lu leen neex la ñuy tali bi ba pare bu accident amee rek ñu jël lépp ak ñu compte chauffeur bi mais la inexcabilité yooyu na ko jël ki joxe document oto yi yooyu ñëpp ci bokk na ci liy indi accident mais bu accident amee rek di wax leen dëkk yi ñuy dund dafa bëri accident accident yi benn benn accident jàpp nga ne accident yu bëri yi euh, nguur gi maanaam mooy responsable bi mooy premier responsable te dafa am accident yu siiw yoo xam ne yi moom la ñuy topp mais accident benn benn yi bu ëpp fuuf loolu booy bee Dakar ga région ba mu dem da ngay gis oto accident par jour lii dee ci benn benn lii kaa ci benn benn mu ëpp fuuf benn accident boo xam ne oto bu daaru la ñett lii dee ko ñu yóbbu ba télévision yóbbu ba lépp yoo accident boobu fekk lii dee ci benn benn moo ëpp loolu te duñ ko wax maanaam population bi lañuy nax bu ñëwee yóbbu seen télévision dafa déclaration pour que population bi xam ne ñi ngi xeex accident xeex accident ku ko bëgg xeex benn benn yi dee sax du am kon tey benn am mais lu dañ ko dina am parce que li ñu war a wax dëgg moo la yóbbu dëgg ñun nekkuñ ci dëgg gouvernement nekku ci dëgg boycott yi nekku ci dëgg population bi nekku ci dëgg ñëpp kenn nekku ci dëgg kon kañ la fi li ñu jëlee ba dëgg lañ war a indi dañuy indi dëgg. ngeen xamle woon ne di ngeen bank seen yoxo euh, bu ci gouvernement bi andiwul euh, lii di ay solution euh, ñu bëggoon a xam ndax jàpp ngeen date pour seen grève bi. waaw xam nga intersyndical bi man dama ci am wàll. en tant que seen doyen di seen porte-parole góor ko mooy jiite syndicat bu ñuy wax union des éditions bokk centrale synthèse. Hmm. mais am na beneen camarade Pape Mamadou Ndiaye jiite organisation bu tudd Centres bokk CDC e. ak jiite électrance bokk central bu ñuy wax UNSAS euh, ñii ñoo demoon geraw mais bii yoon dañu ne duñ yem ci poids lu kese ndax ñaqaru jóob la kon dinañ dox tànk waxtaan ak képp koo xam ne kii kilifa nga ci wàllu transport lourd ki transport passager ñu waxtaan ba dënk benn benn bataaxal boo xam ne bii du ñu ñett rek ñoo koy signé mais dañ ci dugal soxlañ transport yëpp transport de passager ak transport lourd c'est yi benn bu nekk nga signé ci ñu jàpp date ba date boobu ci la ñuy dem grève date boobu su ko jot bu ñu déposé journaliste yi dinañ leen yëgal leen kat date sàngam jàpp nañ ko muy inter intersénégal élargi intersénégal élargi boo xam ne di syndicat yëpp a ci bokk bu ko regee du du kumbe dinañ ko yëgal yëpp te kenn ñu dañu bëgg a dee transport de passager bi mutu yoo demati transport lourd mutu yoo demati wala tarification bi uh-huh. tarification bi bi ñu a bi état dañu war a jàppale kon bu a passagers yi noonu mel na mais seen yónneeku ci maanaam dañoo daal transport dañ kaa sànni ci àll bi waaw looloo a nag manque d'organisation moo ñu sonal luñ liggéey mu yem ci tali bi loolu moo ñu métti luñ moo métti la affaire nekk na mhm. ñu ne dañuy xeex pour yàq tali yi mais dañuy wax ne loolu amatul léegi ndax bu jëkkoon da ngay yeb ba fees nga ñëw ñu lëppal ba trois tonnes da ngay fay boo fayee ñu la demal mais loolu amatul léegi léegi foo egg boo ëppee trois tonnes dañ lu dugg lu bëgg waaw kon kay oto yi daw kay ci transport man nañu dawee kon kay kale wul yàqote parce que boo xam ne bii oto boo xam ne bi day wër di di pété mais oto boobu li li ci jaaxal oto boobu boo gisee camion bu sax lu diis dañ naa bu ci yéeg ndax boo ci yéegee appareil bi day yàq waaw ñoom ñu wër oto bu diis bu ci yéeg topp oto yi ndaw yi nga xam ne dañuy yàq suuf ak ay yàqu ñu tali oto yooyu danañ topp hmm. oto bu yéeg fay deux mille bu yéeg fay deux mille ñun dañ ne loolu dañ ci arrêté comme dañu bu ñu leeree tàng bi ci ci yéeg yi wër ñu ñu mhm. ko saytu ministre dafa leen def ay proposition ñu ne léegi bëgg mooy première proposition bi nañ ko annulé buñ ko mënul annulé képp koo xam ne que yabatoo lu ëpp bu ko fay mhm. ou bien comme dañu toog oto yi nga fay la ba le cinq ba tey jii moom ay deux mille francs ku yem loo xam ne boo ñëwee boo ci yéega métu bi yàqu dinaa dam ci yëg kon deux mille yi lañ tam ko léegi nag machine yi nga xam ne dañu leen installé partout ñun dañ ne léeg-léeg machine yi dañuy jàpp ne machine dafa am ay anomalie te service météorologie moom mooy saytu lépp loo xam ne lii mooy wax dëgg ci wàllu machine. Mhm. te six mois bu nekk dañuy ànd ak ñun ñu leen vérifié ji mais mën ngaa vérifié tey fekk ñaari fan machine bu am problème ndax problème machine la mhm. mais duñ ko laalaat ci tànk six mois yi ma tudd il faut météorologie ñëw loolu moo suñu problème loolu moo suñu problème météorologie yi wax ne moo war a xool te six ba six lay génn di xool yi donc machine bu ci baax alhamdulilah rabbi mais machine bu ci bon tamit da xaar six yi loolu tamit dafa nekk facteur ñu mënut li xew ca Mali jamono ji euh, mën nañoo ne xel dalul ci euh, ñiy dem ak euh, di dikk tey yéen ngeen nekk ci yoon wi di dem Mali di dellu ndax la xew ca Mali depuis booba ba tey dafa am lu mu yàq ci seen liggéey. yàq na lu bari moralement par rapport la jëkkee ndax Mali du tey rek la insécurité bi am foofu parce que kuy malien laa la wax sa xel dalut Mali sa nekk na réew boo ne amul stabilité ku ko nungu ak ko bay yëpp Mali du pays bu organisé anarchie moo fa am ku ko nungu ak ko bañ léegi nag mu am benn transport bu dox diggante Sénégal ak Mali malien bi ko def Sénégal bi di ko def dugalante mais dañuy am bi chaque jour attaque am comme attaque bu nekk benn place rek mais attaque boobu ñu constat bi ci def ñi attaqué taamuñu kenn ay poste la ñuy attaque léeg-léeg ñu kaa oto yi attaqué oto oto yi jël li nga yore jàpp poste yi dikk attaqué xamuñu la ay policier kay def xamuñu ay gendarme kay def xamuñu ay ñu koy def en tout cas la ay moom seen nit ñooy attaque léeg-léeg mu burkinabé mooy ñaay attaque def suñu mhm. ku baax bien na c'est que da ngaa fexe ñu biir poste bi def ay formalité gaa ñëw attaqué poste bi rek ay ay ay Alphonse ay Burkina ngi ci ay Mali ngi ci kon attaque bu visé wul Sénégal attaque bi dafa wuutul ndax publicité da nekk ci biir kër yeeg mbedd mi man maanaam actuellement nii may daal neexul wax ay amatul benn sécurité wax nañ suñu ambassade nag arrêté nañ suñu gouvernement ne leen tuddal ñu ay solution ñun position bi ñu mooy proposé mooy ba fekk Mali bi am nekk pays bu jëlee mu taxaw bu am na Mali yëpp si dëkk ñu yëpp si dëkk ñu ñu leen transporter fii dem ba frontière bi jox leen ñu yóbbu ko dëkk mais duñ ñu ko Malien bi def jël biir Mali ñoo biir Sénégal il ba fu dem déedéet dañ ne kenn ko doon sa dëkk ñun ñoo jël ci biir réew bi yóbbu frontière jox leen ñu dugal seen biir réew loolu nag ko def xamuñu ko def mais li yóotoo daal mooy Mali ku fi dugg ku nekk mhm. yaa ngi ci insécurité bu mat kër ndax ñuy attaqué xool ñu góor xool ñu ay fatal lañ yore di tiiree te nawet bi ci xool fañ nekk fañ attaqué te ñun tamit ci nawet bu réew mi lan bi tax la koy contrôlé ci law bu doon contrôlé ci poste yi frontière ak poste yi fa def yëpp mënoo romb poste bi damoo def def def publication dem def say situation la foo def te poste yooyu lañu attaqué te am ñun amuñu waa romb poste yi ne duñu duñu duñu def formalité te poste yooyu ñoo nekk loo xam ne nii wax nañ ne bu leen daw guddi mais bu dégg ba ci lépp ñoo yem Mali ci boobu moo amatul sécurité man gëm naa ne Mali ci boobu sax xam ne nii amul sécurité bu fekkee am naa droit wax ko daal wax naa ne man amul ñu droit amuñu sécurité bu dee amul droit wax ni laa yoo wax ne la ma gis ma ni amul dalul xel amul sécurité wala lii leen na biir Mali li ñu leen wax gouvernement ah amaguñu tontu ndax dañuy nangu léegi ñu yem si ngi yëru dëkk gouvernement bi ah day bàyyi rek ñuy dem ah mu ngi noonu ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. waa ñu ngi lay jaajëfal di nuyu. di nuyu aussi di di di jaajëfal aussi acteur bu ci yëpp di nuyu RTS Sénégal à trois bi. Mhm. di ñaan yàlla aussi à trois bi nekk dem ba nekk à dix ba à huit. Euh, en tout cas à trois yi demoon na grève te ñu ngi jàppaat ne dañuy waaj dem grève même ñi ñuy seet si sax bu ñuy seet si bu ci bokkee moo gën a baax mais bu ci bokkul dañuy dañuy dem dañuy dem parce que tamit lii gouvernement bi yeloon ñun la ko yeloon te tamit foofu dafa wax boppam kon ñu ngi gërëm bu baax Rewmi FM mais ñu may say gi ñu mën a wax si dudu wax ak surtout Diallo Niang wax ak Pape Modou Ndiaye waxaale tur yi ñëpp waaw en tout cas nag Sénégalais yëpp xam ne le gouvernement bi yow ñun dara la ci dugg dara ba bu ëllëgee bu dara amee bu wax ne transporté dañuy fontoo wax ne leen ne ku war a wax waa gouvernement waxal gouvernement nit ki dara war a bay ñu ne ne signé nangam te mënoo ko Dakar bu ñëwu ko mais man dinaa ko signé naa ko jëfee loolu tegul fenn jërëjëf